gars yi gone googee ngeen gis ci ginnaaw dafa jël décision bu rëy rëy dane Sénégal la bëgg a football mooy gone gi bokk ci ñiy éliminer Sénégal ci coupe du monde U17 bi ñoom Amara Diouf doon football maa ngi ci ñëw ak mbir mi nu mu demee naa la ak coori nu mu juree salaam gars yi maa ngi leen di béggee nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant gone koo génn gis moom la ñuy wax Tidiane Diallo bokk na ci gone yi football Sénégal contre Sénégal ci coupe du monde U17 ba gagné ñu ñu qualifié dem final ak France moom nag dafa déclaré ne Sénégal la bëgg football mais déclaration ba mu koy def ci pet loo ko def ci suuf ba mu fesee nag maa ngi yaakaar ne ni maa ngi ciy ñëw nag mbir mi nu mu demee nal ak naka la dafa ba match bi jeexee Serigne Saliou Dia mooy leeral que ni gone gi daf ko jege wan ko envie bëgg ñëw football Sénégal dana ko dafa bëgg a sol mooy Sénégal kon loolu c'est clair et net booy yi parfois ñoom dañuy bëgg ñëw mais du nu xam nu ñuy def ba intégré parfois suñu dirigeants yi ñoom ñooy war di dem di leen tegal ay projet mën leen a attirer comme Maroc ni mu leen di defee ni muy xëccee gone yi mais gone gi moom ci ni muy amee 17 ans mu jël risque bu rëy rëy ba pare di football France doon fa titulaire parfois mu baax parfois mu titulaire ba final ci coupe du monde bi mu ne fa ñukk France teel a choisir équipe nationale Sénégal te amagul sax cinq ans décision bu rëy bi mu jël noonu ak risque bi mu jël nii no mais ba pare yamaatuñu foofu sëñ Saliou Dia wax ko publiquement foofu risque la ci carrière ci bu ko Sénégal fédération bi suivrul toppatoo ko teel koo indi moom it jox ko national mu football ci petite catégorie ba ker baak nu muy mu amee niveau football ci équipe A bi buñ ko teelul jug ci ay mbiram teel koo protéger carrière am mu ngi en danger nag loolu sëñ Saliou def ko publiquement français yi mën nañ ko dégg am lu leen lu leen ci metti tu léegi nag ñu indil ko ci Euh, problème mën nañ ko bañ a tee sax sélectionné ci équipe de France yi petite catégorie kon foofu mën na croix France mu des Sénégal peut-être ak Algérie bi nga xam ne yaayam fa la soqee ko mu ngi noonu mais dafa teel a leeral publiquement que ni daf ko teel wax que ni Sénégal la bëgg football mais pas public sëñ Saliou Dia la jege wax ko muy coach ci U17 bi après nag ci émission bi amoon TFM Serigne Saliou Dia leeral ko foofee ci noonee nag. risque la ci booy bi ci buñ ko toppatoowul taxawu ko maanaam dafa jël risque pour wax ne Sénégal la bëgg football mais nag dañ ko yaatal yéegal ko ci kaw a kaw te la ci carrière am ci buñ ko toppatoowul taxaw ko nag France moom lii moom bu ko yégee daka naan ñukk bàyyi ko foofu ngeen xamee ko noonu may na xaar ci commentaire yi nan ngeen gisee loolee kooku di Tidiane Diallo goneeg la excentré la am na talent vraiment te buñ ko suivre toppatoo ko malgré ñun suñuy petite catégorie ay booy mën football fi nekk jom mën naa ne ñeewuñu kenn mais tamit jour du doy te it moom wax na am envie football Sénégal wax na ko mu leer te doon football France kon kooku se est un jeune à suivre ma ne xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee jàmm ci yéen gars sa liggéey bi nice na ok continue ko te positif xam nga da ngay réfléchir xam nga doo wax na su dul noonu j'aime bien ñoo far. ñoo far. avec mon grand Diouf. mais bëgg ci waa.

bëgg kuy tubaab na tere rek nga drapeau Sénégal. bëgg kuy tubaab na tere rek nga drapeau Sénégal. Alhamdulillah

وإما والرحيم كانوا من آياتنا عجبا مصر والفتية إلى الكهف فقال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أو اتخذوا takbir Allahu akbar yàlla ngeen yàlla yàlla def na ko am jom ma sha Allah yàlla yàlla def ay sinwa ngeen mokkal alxuraan ngeen mokkal alxuraan moom seen yaay dañ kontaan vraiment loolu nekk leen bu baax a baax si yaatu ma sha Allah yàlla yàlla def ay sinwa def leen ay bëccëg Amen. amiin yal na yàlla fay leen ci way yi ak jàng alquran